5M TV Sénégal. mbokk yi siiful 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm sëriñ Modou Kara yëkkati ay kàddu jëmale ko ci président Macky Sall ah, di wax na nag ah, président Macky Sall moom ah, kenn mënu ko ci politique ndax moom bu dee politique maanaam jàmbar la ci te liggéey na loo xam ne kenn liggéey ko ci réew mi nag moom nag. dara mënul tee mu toogaat ci réew mi loolu nag nekk ay kaddu yi Serigne Modou Kara mu yëkkati ko jëme ko ci président Macky Sall di wax ne daal Macky Sall daal dara mënul tee mu toogaat ci réew mi moo wax ne nit yi dañoo jàpp ne rek coow rek ak kiy wax mën naa tax président Macky Sall jóge fi loolu du yombee noonu loolu say kàddu kàddu yi Serigne Modou Kara Mbacké la mbokk yi jox leen di demee incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak 5M TV Sénégal ngeen wéy di 5M TV Sénégal